mooy li wax min ha tawassulu tuyóor maanaam picc mi daa ñëw di ko jàmbat waaji bi xii lahu staka baxi loolu nepp li yu bari moo ci am mooy maanaam giléem gu koy jàmbat itam ay ay ay ay mbiram bari na lool mooy yonte bi jaabir ibnu abdullah itam nett na nett na ne nett na ne maanaam maanaam yoonam woowee nga xam ne ab xare lañ lañ lañ lañ lañ lañ lañ demoon bay dëpp te muy lu lu lu ñëpp xam xëy na danga ko tase moom ba tay ci téere yi nee na jaabir nee na wala boog ci net li xarit bi maa ngi leen di leer la rek ne maanaam xadis yi yooyu ma wax yëpp mi ngi fi nee na ci gàttal rek dañuy ñëw ba ci benn tóokóor ci tóokóor yi nekk yu wër Madina nee na am giléem goo xam ni dafa nekk ci biir tóokóor bi ñu yew ko nee na giléem gi bi mu séenee yonte bi si yonte bi duggee ci tóokóor bi bi mu ko séenee rek da daa tàmbali jooy maanaam bët yi de di génn ndox di tóoru moom giléem gi yonte bi ñëw fompal ko maanaam ronkoñ yi daal di wax ne ku moom giléem gi am ñu ne ko maa maa ko ñoo ko moom ci waa ansaar yi maanaam ñu dëkkoon Madina mooy leen giléem gi de mi ngi leen di jàmbat nee na moom fayu leen ko borom maanaam ngeen koo liggéeyloo ba mu sonn ngeen ngeen sonal ko coono bu ne te jox leen ko dara mu lekk ko mi ngi ngeen ngeen yow am na itam buñ ci nekk li boo xam ne loolu ay ay ay ay riwaayat yu bari la am na ci giléem goo xam ne moom dañuy wax ne daa daw ba ci yonent bi alayhi salaam mu sukk am na giléem goo xam ne sax daa sujjóot maanaam bi si yonent bi rek daa daa daa ak daa sujjóot nga xam ne ñooñu dañ ko wax ne que yow maanaam giléem yi ginnaaw ñoo lay sujjóotal asamaan nun nit ñi kon ñoo war a gën a sujjóotal mu leen deet loolu bu leen ko def sujjóot yàlla dëgg na lu ko ñu di ko defal benn mbindeef sujjóot bi mu wax nag mooy mooy bi bi ñuy def ni booy julli boobu moom mbindeef waruñu waruñu ko defal yàlla rek la si ko defal aywa noonu li ñuy def li ñuy tuddee takbir ya di loolu dañ ko tuddee sujjóot waaye du sujjóot loolu takbir mooy foon loxo lañ la tudd ci arab waaye bu ko tëg li ñuy wax sujjóot wala fi ñëw marché du ko tudd sujjóot sujjóot waaye du sujjóot giléem gi nag gi muy wax nag yu bare bare la mënoon naa génne téere bi di ko wax ni waaye loolu day gudd giléem gi muy wax ni moom daa ñëw ba agsi ci yonte bi mu daal di yës ñu gis ronkoñi di di di di di fat yonente bi fekk booba am daam ñu ko doon dàq ñooñu bañ agsi yonente bi ne leen yéen de giléem gi jàmbat na leen ndax wax na ne wax na ne maanaam gétt gam ne maanaam giléem gu fa judd rek moo ko jur
waaw dëgg maanaam giléem gu fa gu fa gu fa judd rek moo ko jur ñu ne ko loolu di dëgg la wax na dëgg de ñun dëgg moom lañ amoon ci giléem gu mag goo xam ni wax nañ nee na maanaam lu maanaam gu fa maanaam lu fa gu fa judd rek moo ko jur ndax moo fa nekkoon moo nekkoon giléem ga mag ci ci ci foofu mais mooy leen mu ne leen itam nee na dawal ngeen ko bëccëg dawal ngeen ko guddi war ngeen ko sëf ngeen ko lu ne itam ci coonam mu dem ba màggat ba toll fii nag ngeen bëgg koo rey gaa yi ne ko loolu lépp mu wax dëgg la wax dëgg yàlla lu ne def sëf nañ ko ko lu ne itam def nañ ko ko waaye nag fi ne dana def bu bëgg koo bëgg koo rey ngir jëfandikoo ko nee na nag maanaam yonent bi wax leen nag ngeen ngeen jaay ma ko ñu nangu ko ko jaay lu xorom ma nga noonu mooy giléem bi ñëw jàmbat gaal yi seen maanaam maanaam yonent bi alayhi salaatu wa salaam làqatu si ci moom moom la suñu wax la hustaka bair wan fajaral maa un namir min yaddi di sakkaru mi loolu laa waxoon léegi mooy ndox mi nga xam ne moo doon balle ci loxom sumi a tasbixu taam fi kafi afdalil anam xitaabu rabyin bi kalaam mujisatul muxtarami xitaabu rabyin loolu xad téere siire yu bari nat nañ ko mooy xéwal goo xam ne dañoo wax ne benn waaye da ko doon da ko da ko da ko doon rëbb ba jàpp ko ñu ko jàppee nag wëlbati ko ba ba tolloog yonente bi alayhi salaam xéwal gi rëcc ñëw jàmbat yonente bi maanaam gaañ yi ko jàpp yonente bi wax wax ak waaja loolu yaakaar naa mi ngi ci sara man gisuma ci xadis bu kii nii waaye mi ngi saraaf xamsiya bii dama gëj yi waaye noonu la demee mooy kël gi bi yonente bi daa wax sa ki doon ki doon rëbbu ne ko kéwél gi nee na dafa bàyyi ay doom yoo xam daa bëgg nga bàyyi ko mu dem nampaleen te dil si war sàmm bi ne ko ah boo ko bàyyi dana dil mu ne ko yonte bi ne ko loolu maa la ko garantir boo ko bàyyi dana dem te dana dil ne mu bàyyi ko kéwél gi dem ba mu yàgg ba yàgg ba yàgg ba yàgg mu jekkee kéwél gi del si war nga xam ne waaj daa mujj ne yonte bi nag far naa ko jéggal nag bàyyi nag maanaam yërëm yërëm ko far bàyyi ko maanaam jotu ko jotu ko rey loolu la suñ wax fi xitaabu rab yi am na itam beneen mooy mooy mooy fu mooy suñ wax na ko ba tey mooy wa zi bu kallamahu mi ngi ci mi Hamad Souleymane wala wala wala wa zi bu xaatabahu yawman bi aswaati maanaam loolu mi ngi ci Hamad Souleymane daa dafa wax ñaar mooy wal wa dabbu kallamahu wa dabbu xaatabahu yowman bi kilmaat mislum siqaaqi sinim maarin li talxatihi wa dabbu xaatabahu yowman bi kilmaat ba agsi ci wax ne wa dibu kallamahu yowman bi aswaat maanaam till goo xam ni moom am na koo xam ni la tax mu dugg ci lislaam xam nga till gaa tax imaamu Tirmisi moo nekk li xadis boobu wax ne benn sàmm la boo xam ne ci weti Madina la nekkoon doon sàmm ba mu yàgg genn till ñëw fi mu toog rek këf menn mbote nara daw ak moom till gi dàq ko mu wàcc mbote mi nee na till maanaam maanaam till gi dàq ko waa ji sàmm bi ba dàq ko mu wàcc mbote mi ba pare daw sàmm bi topp ko nag bëgg koo faat bëgg koo faat nee na till gi daw ba mu yàgg nag mu jëkk-yekk taxaw wëlbati ko lem ab ab ginnaaw ga toog ci waa ji ba mu gisee loolu maanaam till gi yëmu ci da ko wax ne ko lii ma yàlla wërsëgale suñ bi nga bëgg ko nga bëgg ko nangu nga nangu ko ci man ba pare bëgg maa topp di di waa ji ne eh till guy wax mu ne ko loolu am na lu ko gën a yéeme till gi ne ko loolu am na lu ko gën a yéeme dëkk bi nga seen mooy mooy Madina am na ko ñu fi wax Muhammad ma nga fa nekk di wax di wax nit ñi xibaaru suñu borom ak yonente ya jiitu woon ak la jiitoon lépp mu den ko xibaar wàjj ne kooku de kon war naa ko seeti xam nga moom mi ngi ci tiit moom maanaam ba mu gisee tiit goo xam mi ngi mi ngi ci tiit ne ko war naa ko seeti mu ne ko demal seeti ko mu ne ko nag sama gàtt yi laa xamut nu ma koy mu ne ko dénk ma ko ci digg ne ko dénk ma ko wàjj ne ko dénk naa la ko maanaam boobu moom tiit na wàjj tiit na tiit na dénk naa ko bi mu ñëwee digg bëccëg la ñëw Madina la ñëw ca dëkk ba bi ñëwee nekk li yonte bi ba alayhi salaatu salaam li xew lépp yonte bi alayhi salaatu salaam dafa wax Bilaal ne ko wooteel asalaatu jaamia maanaam bu bu mbir ma saa xew mu yonte bi mu waxam ne yonte bi saa yu demee ba war a wax ak nit ñi loolu la ñuy wax asalaatu jaamia bu ko nit ñi déggee ñëpp ñëw xam ne yonte bi woote bi mu ñëwee mu wax waa jaaral fi nga jaaral nett li li nga waxoon waa ji nett li lépp waa ji nag ci la doxee tuub waaye ba mu tuubee dafa wax yonte bi ne ko waa ji till ga bàyyee naa ko sama xar waaye waaye nag ci mu tiit rek laa ko def yonte bi ne ko incha allah doo fekk dara mu laal ko ci dana la ko sàmm te du ca laal dara waa ji ba mu demee fekk till ga jot a faat dara nekk ci xar ya di leen sàmm lu kenn xamut nee na mu daal di koy reyalum xar jox ko maanaam benn gàtt ba mu naroon xëy na ba mu doon dàq wala beneen mu reyal ko gàtt moom sàmm bi jox ko jox ko till gi neexale ko loolu loolu la suñu wax wa zibu kallamahu yawman bi aswaat nga xam ne kooku ci liggéey ko tax a gëm suñ waxaan na ci bari bari mooy kalaamu dabbin loolu moom itam dara gën a koo yéemu alayhi salaatu salaam maanaam yi menet lii da nga ciy déggee bokk na ci li ci déggee mooy yonte bi ñëpp ko xamoon yonte bi ñëpp ko xam maanaam mbindeef yi doomu aadama yi mooy am ñoo xam ne dañuy sikk sàkk mbiram ak a weddeeka jëm a dingat waaye yeneen awaalim yi ñëpp ko xam fi ne mbëtt mi moom ku ne xam na ko xadiisu mbëtt mi imaamu tabaraani nettali na ko ak imaamul bayhaqi ak abu nuaym ci dalaayilu nubuwa nubuwa ak ibnu asakir ci taarixam boobu ak ibnu mundata ak ibnu kasir ci bidaaya wa nihaaya ñoom ñëpp ñu nett li wax ne sayidna umar ibnul xataab ci lañ ko jëlee xadiis boobu benn sàmm boo xam ni daa romb yonte yi fekk mu sàmmi woon ba jàpp am mët ba fees ko génne li ci biir bi yor yàpp yu noonu di ko waaje lakk romb yonte bi muy wax muy wax ñu ne ko kee de ab yonte nee na ab yonte la muy xaaral ma dem ci moom ñëw na yonte bi yow yonente nga mu ne ko waaw yàlla ma yónni de mu ne ko sama mbëtt mi nga séen de su la gëmee ma gëm la yonte bi ne ko ah mu ne ko waaw mbëtt mi mu fees ba noppi kay ba bu la gëmee ma gëm la yonte bi ne ko yaa dabbu man ana maanaam mbëtt maay kan mbëtt mi doonaat mbëtt moom doonoon maanaam fees gi yëpp mu laa mu laa jàppalewaat mbëtt mi ne ko anta rasulu rabbil alamin maa yaay yónante borom bi ndef yëpp wa xaatamu nabiyina yaay ki mujj a ñëw ci yónante yi itam qad aflaha man saddaqak maanaam ku la nangul dëggal la kooku moom am na texe adduna ak alax wa qad xaaba man kazabak képp koo xam ne weddi na la kooku sooy na tex na itam bëtt mi daa wax loolu waa ji fi changé moom daal di nay maanaam daal di nay gis ñu ko jaaxal moom fa changé moom xol xol ba ngam dugg na ci mu daal di wax yonente bi rek ko ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad wa annaka rasulullah maa gëm yàlla daal di ànd ak yonente bi